résidence ñu lay fayee ku bëgg dem dugg ci liste ñu ne doo fa dugg ngay défendre benn nit sama bu ci mbay ba nañu ñu vidéo jeex journaliste yi yéen daal nii rek yàkkamtee génne information ba wéru tey baa xoolee presque site internet yëpp ñoo ko premier adjoint biir Kër Massar Nord nekkatu yu ay kàcc la dara amu ki ñëw wax ne daa daa démissionné sax bokkul Pastef mooy maire màgget Xoma wuuteeg maire Rabi Ndiaye mii nga xamante ne mooy premier adjoint maire Kër Massar Nord ñu déglu ko avant ñu développé. naa leen présenté waaw man Rabia laa tudd maay premier adjoint au maire bu Kër Masar. démb transi ma dem ci président Macky Sall. waaw man rumeur boobu bi ma ko déggee bi ma ko déggee dama am lu ma naqari mais après dama am lu ma ndax li tax am lu ma mooy ku ko dégg Kër ne maire Rabi deful loolu loolu amul ku ko dégg da nga ko weddi mais ñu yeddoo maa woo téléphone ma yaakaar ne nag. ma ñaan leen rek. avant de publier information ngir le vais information bi avant de publier information gëstu leen ko Je dama leen il ñaan hmm? surtout tu Je a des ma des vidéo suñu vidéo di relayer

dafa tak sama xol il faut ma génne ko partager ko ak parce que nee na nit ki loo ko waxul xamuko man mii suma la waxul man may kan yow doo xam te lima ma bëgg nga xam ko ci man rek mom la lay wax mais ñun ku ñu xam yaroon ñun màggandoo ñun wala ando ñun xam ñun ay bañkat lañ inciter nit yi pour nous génn inciter wuñu kenn pour mu génn gis nga képp koo xam ne ne jël nga sa responsabilité nga génn c'est parce que tu es conscient. Lolo tax mané la tay nañu waxtané si le sens du vote. Et c'est quoi le vote Parce que gis nga bo xamul le sens du vote ak lan moy vote do mëna def comme ñi di génn ñii di génn di xeex Ousmane Sonko joxu leen ñu lek joxu leen ñu naan ñii di génn di xeex a toog te kenn du génn kon buñu banaliser gis nga kañu tecc ca kasso ba gëmuñu ñun ñi toog ki nekk ci ci Sonko Sénégal mais est-ce que Ousmane Sonko ñun suñu défaratul nous sommes ñun suñu nous suñuy xol ñun suñu lu est-ce que nañ nañu toogaat defaat rappel chaque population il a le président qu'il mérite te wax du wax Macky Sall ñu bëgg ko c'est le président qu'on mérite nous, ñun sénégalais parce que ñun ñoo bëgg ñu ñuy noot ñun ñoo bëgg ñaanaatu nee nit nit nit balaa ngay ne yow nit nga sax mooy lu raisonnable gis ne ku lay may may may may chaque jour war ngaa rus bët bu rusul toj yow bu dee góor moo nekk ci yow war nga sax rus nit ki di la may chaque jour jaral na la nga wane nit ki hey bu dee bëgg nga ma jàppale ma wan ma nu ñuy nappee moo gën nga may sarax chaque jour di ma jox ay miet lan moo tax ñu war a doylu lan mo wara tax ñu wara doylu parce que demb dama dugg ci benn live am sama choqué en fait dama tok sama ginnaw panel di déglu di déglu di déglu affaire bi choqué ma ma xaar ma dugg ma dugg dégg gel bi di naan Macky Sall il a travaillé des routes wala permettre de de de de de comment dire à la personne mu baña arriver en retard si liggéeyam war na tax nga note nit ki man mënuma comprendre lu Macky Sall ces gens qui défendent Macky Sall hein, qui se disent défendre Macky Sall et le bilan de Macky est-ce que Macky Sall dafa un mais est-ce que Macky Sall nest pas waxante est-ce que Macky Sall dafa man il faut changer les mentalités donc merci live mais attendez soit à APR ils sont amnésiques soit c'est nous les Sénégalais qui sommes amnésiques mais est-ce que Macky Sall il est le premier et le dernier président à gouverner le Sénégal l'État c'est pas la continuité l'État est-ce que c'est pas la continuité est-ce que Macky Sall dafa am loo xam ne ne xalaat na ko wala mu def ko te Abdoulaye Wade defu ko wala Senghor defu ko wala Abdou Diouf defu ko Sénégal faut xëy xëy doon nous mu mais reculons nañu jël ben ba bande ñu tegal ñu ko ñuy ñuy reculer man j'aimerais bien avoir benn cinéma bu mag boo xam ne ne dama leen di tegal fii benn écran ngeen di seetaan ma jël kii bi di ko di ko di ko di ko di ko tourner ngeen di gis pour ñu taal du génne jeunesse bi pour ñu kii mais à quoi ça sert que vous vous vous présentez parce que nañu waxante dëgg man je peux concevoir yow nga bokk aar Sénégal nga ne man duma wax samay militant nañu génn wala du ma wax samay militant euh, sama modérateur yi dañ maa wax dara loo xam ne ne Seydina Ousmane Sonko ci jëmmu boppam moomu ko ñaanal s'il vous plaît modérateur yi képp koo xam ne ne da nga fee saaga wala wax wax ju ñaaw bu dil leen ma ko maa leen ko wax merci du ma leen tontu di yàq sama développement yéen euh, nee naa leen vous êtes des déchets euh, comment dire nga bokk aar Sénégal nañ leen waxante dëgg de vous en nous nan ngay bokkee aar Sénégal wala nga bokk ci PDF peu importe, tu fais partie de l'opposition, tu es opté à diriger le Sénégal. Mais li di di gis ni yëpp peut yëpp définir ko def yow nan nga wax ne yow opposition nga Ousmane Sonko moy wo ay militant ñu génn nga ci sa di gis ne ne yow nga ne rek nga wax sa militant ndax euh, Macky Sall carte moo ko fiy on respecte on respecte vous nous avez dit bu ñu génn xeex bu ñu génn def dara nañu toog di seetaan Macky Sall di bum di bummi mais comment ça se fait en huit mois des élections en huit mois des élections mënuñu wax kii mooy candidat un grand premier dans l'histoire du Sénégal huit mois huit mois mënuñu la wax Ousmane Sonko day bokk ndaxte lépp ñu ngi koy def. waxante dëgg arrêtons d'être hypocrite ñun sénégalais dañu wër suñu morom nit di ko yàq ya, te xamaluñ ko dara loolu moo ñu dal lo tey nit xamaloo ko dafa melni Elisa mun nga bokkat mom benn groupe xamoo la xamoo ko musoo dem ci mom ba pare nga tok di ko yak ta xamaloo ñaanu la la ñaan xamaloo dafa melni Ousmane Sonko ah yow Mame Mbaye Niang nan la mëne porter dugg suñu kër sax diffamation est-ce que yéen a ngi dégg li ñuy wax diffamation la ñu wax en plus pourquoi isa xaw ma Seck bind ci livre am arrêté wuñ ko keneen ak keneen wax Cheikh Yérim Seck mën naa leen ko woo Ousmane Sonko te mu doon ci plateau de télé te mu feneen ak feneen El toogu fi diffamé fi euh, Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko day sàcc ay terrain dafa jël ay terrain maye ko ñaata yoon lañ fi diffamé Ousmane Sonko. seen militant dama leen di wax ne Ousmane Sonko waxul benn militant wu mu génn xeex xam nga lu tax Ousmane Sonko il a pas besoin de dire à ses militants ñu génn xeex parce que ñun dañoo xam ñun dañoo xam droit xam lu ñuy xeex ñun nee nañ leen xeexuñu xeexaluñu pour Ousmane Sonko on se jóge légui ñu né ok dañuy fair play légui comme te loolu moo am ñun dootuñu xeexati ñu xulooti comme te yéen nee na ngeen ñu vote mooy tax Macky Sall jóge fi ok on va respecter ñu xëy war a dem di dugg ci liste ñu ngi ibbil xool leen li xew démb Milan Milan deux jours révision exceptionnelle ba deux jours la fa je la fa war a nekk gars yi comme te fii nii férié la maanaam le samedi le dimanche et le lundi parce que Pâques la gars yépp fu ñu mënti nekk te xam nañ du am jot ñu jóge fu ñu nekk ñëw Milan plus de deux cent trois personnes légui yow nit yooyu noonu ambassade bi la la wax boko gissé consulat bi dafa reuy consulat wu Milan dafa reuy démb gars yi filmé nañ ko légui yow nga ne yow da nga bëgg rek yoon am te yow moo la fiy jëlee waxat ngeen maire yi waxat ngeen suñu papa yi ak suñu yaay yi pour ñu bañ a génn pour ñu dem vote ñu ne ok léegi ñun ñu ñëw ñooñu ñëpp ñëw xam nga lan la def nekk ci seeni bureau ñaari personnes ñoo doon bind ay nit pour trois cent Pucul